diggante même daam seen la woon waaw daam seen daam seen daan ko jël bu rëy ba ndeysaan ñu bëre bëre bu rëy ndeysaan ñu bëre bëre bu rëy ne ba dara njaaxum njaaxum gëj ci lamb de njaaxum gëj na ci lamb waaw gëj ci lamb gëj ci lamb ndeysaan wala pétré ber non non mën na ko sama xel dama ci yëkkati si yow ñu diri ko sama dama am jël la ndeysaan abu combat bu neex a ngi nii combat bu taxaw ndeysaan ndeysaan diggante njaaxum ak tonnerre numéro 2 njaaxum 2 ak tonnerre numéro 2 ko ko ko ci suuf dañ naan tegeer am yaa bum jàppante nañu ñoom ñaar waaw kor na ko ci kaw de waaw kor xale yi dañ ko xewal de waaw ko kor de kor duur mu duur waaw loo kor ma kor loo duur mu duur waaw dañuy xeex raak tax be premier numéro 2 daawul am victoire kon. kii boobu mooy seen combat bi. daa def seen combat bi diggante Thiat Yarakh ak Mame Balla. ak Mame Balla. te eh, tey combat yi combiné neex na de laay la ndax. dama nekk ci wàllu ndey sa lamb lay wax ni moom. te eh, Tonnerre nee na dafa